Touba Khayra mbokk yi dale nag jàmm fii ci Touba Xayra cosmétique nekk fii ci Dakar rond case ba deux voies Cambérène di jaay bépp xeetu parfum bu ngeen bëgg ak bépp xeetu diwukaay bu ngeen bëgg ba ci parfum Kilif Kera parfum Nova ay diviseurs ngir chambre ay déodorant say am itam parfum Seva Verek ñoom waa Touba Xayra cosmétique di jaay ay gamme Nova Carotte gamme Exclusive White gamme Key Plucide boo bëgg am na fa ba ci gamme François Bodon am na gamme Patricia ay diwu góor mel ni ki toppi crème Sovite gamme Fervite gamme Q plus gamme Patricia Regnier gamme Nova Carotte ay diw yu baax lool gamme Macré ba ci gamme Extreme Glow yii xeeti gamme yu baax lango ak ay parfum yu baax bu ngeen agsi fii ngeen ko fi fek ñi ngi nekk ci Dakar parcelle rond-point case ba deux voies Cambérène yi seen numéro téléphone 77 432 58 56 au 77 278 11 11 ñoo ñaanal ku tedd ki Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif kullu murit mu yàgg fi lool te ànd ak wér. Serigne Modou Bousso Dieng bàyyi Serigne Jili ak Serigne Moutala te Balakara. 14h di ñaari jot na auditeurs yi Mouhalim Info kon ñu yegg leen xabaar yi ñu mujjee am ñeel diggante Israël ak Hamas tey jii di dibéer ñaar fukki fan ak benn ci weeru Chaabaan di baax lu dëppook ñetti fan ci weeru mars guerre bi nga xam ne guerre la bopp. boo ko dee siifur waxtu nekk daanaka ci xol bu naqari rek ngay euh, dëkk ndax li nga ci gis te mu mën a ñàkk waaye tam jàngat ci ne addina bi seen wax ji bari ji yëpp daanaka seen njëriñ bariwul ñeen ëpp doole képp la ñuy napp waaye am na ki ñoo xam ne daal moom euh, kumba am ak ndey kumba am ndey kumba amul ndey moom ak ñàkk jub gi nekk ci ñoom daa fës lool rawatina ci diggante Israël diggante Russie ak Ukraine a wuute euh, guerre la boo xam ne waxtu nekk dañu koy chiffre ngir bëgg di yegge askan wi tolluwaay ndax xam na yitte gum leen yitteel démb ci guddi sax bëggoon nañ ci ñëw ne dañoo amoon empêchement moo tax ñëwunu ci xabaar yi kon dañu koy ah, tàmbalee ci lu ñeel ah, tolluwaay ba askan way wéy di faatoog kiit ba fa am bay faat ay bakkan itam laata la lu ñuy wax ñi bëgg a dugg ci groupe Mouhalim info yi ne daañu mën a jaar ci numéro bi comme ni ñu ko baaxoo di defee rek di 77 320 93 21 77 320 93 21 ku bëgg dugg ci groupe Mouhalim info mën naa jaar foofu. tàmbalee xabaaru di cëri ci wax ni am na day lim boo xam ne faatu nañu ca Bandagasa ndaxub xiif. ay xale yu bari toll ci fukki xale ak juróom-ñaar waaye tam nee ñu am na yeneen xale toll ci juróom-benn xale yooyu xiif a ngi leen di bëgg a faat ca baan daga sax ña nga ca barab hopital ñu def leen ci soins intensifs di leen taxaw ci wàllum faj hôpital bu ñuy wax hopital Kamal Adwan Kamal Adwan fa la ñu nekk waaye bu ñu moytuwul day daañu faatu ndax ab xiif situation bu jéggi dayoo bu catastrophe foofu ca foofu ca baan daga sax auditeurs mu àllimee foofu waaye itam ñi nga xam ne ñooy ab camion yi def dund di taxaw askan wa ngir dugg ci bande Gaza ngir taxawu leen ñoom itam Israël bàyyiwuñu leen ndax juróom-ñetti bakkan yi ngi yoo xam ne ñu faat nañu leen waaye Israël waa Aljazeera ñoo ko xamle am ñu bare bare ñu am ay gaañu gaañu la ko waral mooy Israël ñoo bombardé benn kamion humanitaire ca ca bande Gaza waral kon juróom-ñetti bakkan faatu nañu foofee ca bande xam ngeen li waral. waa état unis ak yeneen réew yi di jël ay dund dem ba tiim leen di leen ko joor di leen ko sànni ñu koy xëccoo mooy Israël lii lii lii ko waral camion yi nga xam ne ñuy jëf dund bi ñoom bu nekkee nii la demee duñ ñemeete dugg ci bande Gaza ndax Israël ci boom day bombardé ah, camion yi loolu kon jur àddina bi léegi ñàkk pexe di tiim ah, bande dagasa di leen ah, daal joor wàcc sànni li nga xam ne mooy ay dund ñu di ko xëccoo kon buñ sukkandikoo ci Al Jazeera am na ab camion bopp dafa doon dugg ci bande Gaza ngir dugal ay aide humanitaire waa Israël dañ koo daal di bombardé juróom ñett nit faatu nañ ca lu bare bari am ci ay gaañu gaañu di la doy waar auditeurs yi Mouhalim Info ba tey ca mba tolay bande de Gaza li mum ña faatu itam ma ngay wéy di yokku buñ sukkandikoo ci ministre de la santé bande de Gaza nee ñu waa Israël amal nañu juróom-ñeenti massacre ca band de Gaza yoo xam ne quatre-vingt-dix personnes faatu nañ ci muy juróom-ñeent fukk nit faatu nañ ci 177 blessés téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari nit faatu ci ci dernière 24 heures yi loolu yóbbu li ñi faatu ba gay bi tam léeg-léegi ci 30 mille 410 inna lillahi wa inna ilayhi rajiun 30 mille 410 fanweeri junni ak ñeenti téeméer ak fukk faatu nañu ba gay bi tam léeg-léegi 71 mille 700 juróom-ñaar fukki junneeg euh, benn toftal juróom-ñaari téeméer faatu wala bokk am ay gaañu gaañu bi gay bi tam léeg-léegi te foofu waxtu waxtu nekk xamal naa leen ne ñoo ñi gaañu daanaka ci faatu rek la ñu jëm ndax ñoom fa ñu fajoo sax amuñu ko Israël bàyyul fenn fépp lay bombardé foofa ca bande Gaza di lu doy waar di lu ah, jéggi dayoo auditeurs yu Mouhalim info ci jamono jooju ministère affaire étrangères bu réewum ah, ministère affaires étrangères bu réewum ah, ñi nga xam ne ñoo di waa Qatar ña nga ca la ñu baaxoo di def rek mooy négociation ñoom daal nee ñu ñi ngi def lépp lu ñu man ngir fexe ba am ab accord ngir fësale fa mën a am ci ba ci guerre bi am fële ci bande de Gaza foofu nag moo wax leen ni États-Unis wax nañu ni am na euh, euh, ta am na daal benn accord boo xam ne Israël d'accord na ko ba jamono ji daal ñoom teg nañ ko ci taabali waa Hamas ngir ñu signé ko Hamas nag ñoom condition yi ñuy signé ay ay ay moom yu ñuy exiger la te léeg-léeg parfois ñu leen Israël moom yàgg naa d'accord ci ñu amal cessez-le-feu waaye la muy condition yam teg la waa Hamas nanguwul Hamas nag nee ñu am na benn délégation boo xam ne dem nañu ci Égypte ngir ñu waxtaan ngir xool sësale fa seen digganteek waa Israël waaye lu ci bari déggoo du am ndax Hamas la ñuy bëgg ak la Israël di proposé dañu ko nangu loolu kon jàpp leen ne waa Qatar itam xamaa nañu ko kon États-Unis ak Qatar ak Égypte ñoo ngi dox ci tànk ngir ñu amal sësale fa daggal guerre bi Hamas nag ñoom ñoo yor gu mujj gi ba léegi nangooguñu ba tey ci xabaaru cër yi Mouhalim Info UNICEF UNICEF nee na am na xale yu baree bare bari ca bande Gaza yoo xam ne bu ñu bu ñu moytul daañu faatu ndax ab xeef ak ab xiif nee ñu catastrophe dëgg ma ngay menacé xale yi bande de seen ëllëg la ko waral mooy xiif ci boppam moo leen sonal fi ne loolu day UNICEF moo ko wax UNICEF nag mbootaay la guy taxaw xale yi ci wàllum di leen euh, euh, taxaw mbootaay gu siiw siiw la ñu daal di xam lu ni mel kilifa yi bande de muy média gouvernementaux yi bande de daal nee ñu lii ñu gis muy largage maanaam di largué ay dund mooy di sànni ay dund ca bande de Gaza di ko jaare ci ay euh, avion loolu daal nee na day firndeel kon addina bi gëmm gu ci lii am foofee ñoom dañoo waroon a fexe ba port bu Rafah baras bu rafaa ñu fexe ba Israël bàyyi dund gi di dund di dugg ñoom ñu ne pat gis loolee seetaan ko waxuñ ci nag naan dañuy jël ay avion di ci def ay dund di ko sànni waa bande de Gaza loolu réglul problème bi mais daf ko yokk ndax xëccoo gi askanu di xëccoo ak dund ba juree bakkani rot loolu moo gën a dansé de nee ñu kon lii am lépp ñoom addina bi la loolu day médias gouvernementaux yu euh, Gaza wax nañ comme waa waa xamaas rek kon ñoo daal di xamle euh, lu ni mel ba tey ci xabaar yi auditeurs yu Mouhalim info ba tey ci xabaar auditeurs yu Mouhalim info ñoom armée bu itam mbir mi itam mi ngi wéy di métti ci ñoom de ndax waa xamaas ñi ngi wéy di leen faat faat gu tar ndax jàpp leen armée xam xamle nañu ni am na ñett ci seen ay soldats yoo xam ne faatuwaat nañ foofu ci bande de Gaza am na itam quatorze personnes yu am ay gaañu gaañu ca ñooñee juróom yi seen ay état yu lu critique la lu garaaf la loolu nag mi ngi leen dare jaare ci benn explosion euh, benn euh, bomb boo xam ne Israël dañ leen ko daal di sànni ci benn immeuble maanaam ay soldats yu Israël yi nekkoon ci ab immeuble ca Khan Yunus Israël euh, waa Hamas sànni leen jumtuwaay da guerre mu jur ñett ñu faatoog fukk ak ñeent ñoom ay gaañu gaañ ke ñooñee juróom ñi seen gaañu gaañu tar na lool metti na lool auditeurs yi Mouhalim info hôpital bii di nekk ca Euh, ban hôpital la boo xam ne ñoo ko moom ñiy taxaw soldats yi amee gaañu gaañu wax na ne ci dernier vingt-quatre heures yi jot nañu lu toll ci dix soldats yu Israël yoo xam dañu amee gaañu gaañu te ñooñee ñeent ñi seen ay gaañu gaañu yu tar la kon loolu méngoo naag li nga xam ne kon moom la armée israélienne xam ne kon nañ ñett seen soldats waat nañu kenn ki nag ab officier la maanaam kilifa la rek wala officier bu ma ko déggee mooy grade la ci wàllum euh, euh, militaire. quotidien xabaar gii di Reuters daan nañ xam le ni commandement central bu Amérique daan nañuy dëggal benn navire boo xam ne waa Angleterre ñoo ko moom daal dinañu daal dinay coulé ci samedi gi ñu génn démb ca euh, mer Rouge Baharul Ahmar am na benn euh, bateau Amérique euh, benn bateau Angleterre boo xam ne daal na fay coulé la ko coulé nag mën naa am mu jugee ci waa ñi nga xam ne ñoo di waa Ansaarullah ñi nga xam ne kon ñoom ñoo wéyiti taxaw temm daal ci ne benn bateau di fi jaar te nag xam leen ne foofee ca ah, Bahrul Ahmar malgré États-Unis ñi ngi bombardé Ansarullah ak itam Angleterre waaye tëriwut ñoom fa ñu nekkoon ñoo nga fa ba léegi de benn bato daanaka fi ne nangutu fa ñemeetu faa jaar ndax la ko waral mooy ñoom nee ñu tànk Bandaga sa amuñu jàmm ak lu mën di xew du ñu bàyyi benn yoon bato bu Amérique moom wala bu Israël moom wala bato bu jëm ci Israël ñu koy bàyyi muy jaar foofee di dem auditeurs Mouhalim info ñu jeexale ci kàddu yi président bu réewum Tunisie moom nag nee daal ñoom waa Tunisie seen position ci mbir mi dañ koy wéy di maintenir te mooy daal ñoom dañuy jàppale waa Palestine ba ñu nangu ñu amal seen état indépendant waaye itam ñu jël Qudsu fi nga xam ne fa la masjidul euh, Aqsa nekk mu nekk seen capital ñoom Tunisie daal ne ñu loolu mooy seen position ci mbir mi ki ko xam le moo di président bu réewum Tunisie di Kais Saied corrigez moi jàppaleen ma fa jàpp leen loolu mooy tolluwaay bande de Gaza guerre bii nga xam ne tar na métti na jéggi na lool lool addina bi war koo régler mel ni daa ku ci néew doole ba tàmbali nag kon di jël ay dundu di dem ba tiim leen di leen ko euh, joor ngir daal ñoom waa euh, askan wa ngir ñu am lu ñu dund te askan waa ngay faatu xaat ña ngay faatu ndax ñàkk lu ñu dundee rawatina xale ya mbokk ju di di mbokk taalibe yi ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké général des mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifte fu sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadr porte-parole général des mourides ci njiital sëriñ Mouhamadou Xaban Mbacké Falilou jiite daara alxuraani ci Touba comité de coordination grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul pour le di kuréel gi ci alxuraanul karim ñu tuddee ko am mbégte di yëgal ne mbindu émission bi dinañu ko tàmbale li ko dalee ajjuma benn fan ci weeru mars 2024 ba talaata fanweeri fan ci weeru avril ci mbooleem gox yi ci réew mi képp ku bëgg a bindu ci jongante bi mbaa nga bëgg ay leeral ci mbindu mi mën nga jokkoog Serigne ca Diourbel Kolda Thierno Mohamedou Arona Silla Ziguinchor Ibrahima Fall 77 575 41 92 38 92 16 Fatick Cheikh Akibou Thiam 77 518 91 45 Louga Oustaz Alioune Ngom 77 923 43 37 Ndar El Hadj Ousmane Sow 77 538 66 48 Matam Cheikh Ousmane Dia 77 784 15 46 Robert Djouk 77 725 36 09 Thiès Elage Malik Diop 77 552 28 79 Tamba Elage Mustafa Wan 77 534 76 12 Kaolack Elage Lamine Fall 77 913 86 74 muy ubbi teg mbindu mi ci troisième édition Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul pour le Saint Coran li ko dalee benn fan ci weeru mars 2024 ba 30 avril 2024 incha allah ci mboolem 14 régions yi ci Sénégal Sénégal asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu